aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen ñu ngi ñëw ci suñu émission yowmal jumaa euh, xam ngeen ni ñu ñëw fii ci euh, Scat Urbam nag di xaar imaam dugg si euh, waaye nu jiitu ko ci min bar bi xam ngeen ni minbar dafay cosaan ci lislaam lu am solo ndax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi Euh, nii la ko daan defee boo demee ca fam ko day fa muy taxawee ca war a diggante minbar ba ak jàkkaam ja ak néegam ba xam ngeen ni fa mu tëdd euh, cosaan lu rëy rëy la te xam ngeen ni keroog bi mu wàccee ëkk gi mu daan yéeg ëkk dafa xaaju Euh, daal di wane ni moom dañ ko war a yéeg euh, tabaarakallaahu moom laa taxaw nii ngàbb yat wi nga xam ni ngànnaayal lislaam lañ lañ koy tudde sax nag ndax imaam bi ci lay sukkandiku téye ci waaye nag ngànnaayal lislaam ndax imaam da daan takk yi mu war a takk waaye ngàbb kii itam ndax itam euh, sécurité am dafa am solo lool ndax ku ñëpp di xool jàkkaarloog yow da nga war a am sécurité euh, loolu moo waral ma taxaw tey ànd koog Ibou Cissé Baye ñëw fas yéene dugg ci jumaa ji xaar imaam yi egsi bu ñëwee ñu taataan nodd yi xutba yi ak li xam ne mooy bayaan yi àndandoog ñoom julli bu ñu jullee ba noppi nag toog waxtaan yi nga xam ne moo aju ci jumaa ji kon nag Ibou dañuy daal di xaar rek incha allah mbooloo mi agsi fii ci Scat Urbam ak seen xarit njaga Seck bisimilah. ñaari weer ci bu ñu juumul. ñu topp ko aljuma par aljuma aljuma bu ne rekk eh, mu nekk taabi di suite ci li nga xamante ne mooy aljuma bi jiitu woon waaye la cay gën a eh, neex sax mooy mbokk yi nga xamante ne ñoom ñépp eh, ñu ngi rafetlu loolu ndax contexte bi ñu tollu ci wàllu campagne ci wàllu élection ñu doon jël nag suñu référence suñu modèle muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëlit ñi nga xamante ne ñoom seen modèle kennala muy yonente bi muy alxulafa al ñu jëloon abu bakrin jëloon omar jël ousman jël ali teg siit ku leen juróomeel ñu koy tuddee alxalifa alxaamis le cinquième xalif muy omar ibnu abdul aziz ci adluhu tawaaduuhu xulmuhu juhduhu yooy yëpp ñu ne bonkat kii ni ko ñëpp tànne woon it ba di ko roy ñu nit ala kulli xaalin duñ mën a def lu dul fàttali kan mooy Omar ibn Abdul Aziz yooyu tamit tudd wax la ñooñu ñu amoon démb mag ñooñu it moom lañu amaat si suñu réew mi suñu mag ñu baax ñi nga gis ne bon suñu tollu mbokk yi ci contexte bile Eh, war nañ di fàttali bu baax waaye tamit di nuyu bu baax al oustaz Ndiaga Seck macha allah ñëwoon na fi tey mu ñëwaat fi eh, ku ne gis na liggéey bi muy liggéey macha allah ci eh, jàppale diine ci def wàllam ci tool bi di wesaara diine sawar ci lool macha allah fu ne yéen a ngi ko fay dégg yéen a ngi ko fay gis. Euh, macha allah di ko nuyu mu nekk suñu wëllëre suñu rakk al oustaz Assane di ko ziar bu baax di ziar mbokk yooyu yëpp euh, ñoom it ñu ñëw fi tey mu mel ni euh, tombe moo waral xëj na ñu ngi dëgmal élection yi gannaaw ëllëg daanaka campagne bi tey lay jeex ci ñoom ña nga xamante ne ñu ngi ci làng gi. waaye la ma waxoon rek ba may tàmbali mooy ah ñun daal duggoon nañ ci campagne bi demoon nañ ci parrainage bi am nañ suñu parti may wax ne suñu parti mooy MRL waaw te yéen ñëpp xam ngeen MRL bi ñu ko waxee ñëpp ko rafetlu adhéré te si lañ mës a adhéré yàlla nañ si yàlla saxal te roolu mooy muhammadun rasulullahi kon jàngaleem rek ci la ñuy roy su ko defee nag terewul nag àddina ku la yàlla joxoñ nga xool critères yi xool xool xool fan ngay teg sa tànk loolu moo taxoon ñu indi ñooñu le mbokk yi bu ñu tolloo fii nag xel yëpp jàmm rek la ñuy woote ñi nga xamante ne même suñuy dëkkandoo la ñu ngi woote pour jàmm am ci réew mi buñ ne jàmm nag lépp ngi ci biir buñ ne jàmm dafa dafa yaatu barayaana ay réew nu ñuy tooge nii aljuma bu ne ci biir Sénégal wala ci yeneen réew mana waxtaan am na réew yu ko manul ndax jàmm moo fa sori kon loolu war nañ ko sant yàlla subhaanahu wa taala kon al amn al ijtimaai dafa war waaw al amn al ijtimaai dafa war nga xamante ne paix sociale su amulee rek daana ko dara doo am أن محمد رسول الله حرم أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بالدين الأقوم والمنهج الأسلم اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه بعدد ذوي العلم والهموم عباد الله يطمع في ديمومة الأمن والأمان استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان لقد مدت سنة الله في وقوع الاختلاف بين الناس وهذا الاختلاف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 قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله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 السلام عليكم السلام عليكم mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziyaar leen nu ngi ñëw ci sunu émission yowmal jumaa ni ngeen ko xamee ànd kook seen xarit alxaaj Njaga Sekk ak Ibu Siise bu baay waaye nag ànd ko ak suñu ñi nga xam ni ñoom lañuy tuddee sponsor di waa alxayriya njaboot sëriñ Abbas Sall te soxna Alimatu ak sëriñ Abdul Fatah mu baax mi nekk ca bopp ba ñu ñëw fii nag ci Scat Urbam ci jumaa ji tabaarakalla fekk fi ay wóolëre imaam Diop ak imaam Mbay imaam Saybata ñu bëggan rek ak mag ñi fi fekk ñëpp jox imaam mu nuyoo nuyu mag ñi ñu jox nag waa jumaa ji ñoom itam yitte yi nga xam ni jumaa ji fi la tàmbalee fi la toll ak fan lañ ko bëgg a jëme ndax jumaa joo dem am na yeneen yitte yu ñu fa war a def ndax du mat mukk jàngalewukaay yu ya fa war a dem yëpp te aju ci dëkk bi wala aju ci koñ bi yooyu yëpp incha allah ñu man cee dugg ak fan lañ ko bëgg a yeggale kon imaam ma jox la kàddu gi incha allah. alhamdulilahi rabbil alamin oustaz Ndiaga ñu ngi lay nuyu bu baax eh, di nuyu kilifa yëpp eh, di nuyu waa réew mi yëpp eh, fu waay mën a nekk it ci àddina bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi fii ci jumaa Scat Urbam nga xamante ne moo nekk ci bopp bi di al imam euh, na Hamidou ban tey mu am ngant egg sewul waaye mu ngi nuyu mbokk yëpp macha allah di rafetlu jetaay bi euh, di nuyu mbokk yëpp nga xamante ne euh, ñun ñoo tege ci moom macha allah ginnaaw imaam Diop ginnaaw imam Bari macha allah ah mag ñi ñu àndal ñoom ñëpp. su ko defee ñu ngi am mbégte ci veillu élection yi ñëw suñu xutba yëpp ñu accès woon ko ci jàmm. kon nag defe naa na ñoom danañ ko jàllale na mu jaadoo waaye daal dañ doon nuyoo rek pour jox kilifa yi parce que li ñu ci waroon wax yëpp wax nañu ko eh, di leen dalal jàmm di am te lool ci liggéey bi ngeen di liggéey ak seen partenaires yi ngeen ko àndal alxayriya kon nag yal na yàlla defal leen tawfiix yal na yàlla doole sutura. wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi teg suñu nuyoo suñu jaajëfal ci nuyoo ak ñaan ak jàmmal wàcce teg leen ci seen wàccuwaay yi nga xam ne imaam Cheyba wax na ko léegi ñu ngi ci teg suñu jos di nu mu gën a gaawe rek wax leen li nga xam ni comme ni ko oustaz Ndiaga waxee euh, jàkka ji kañ nañ ko sos mu def pose première pierre bi le 9 août 99 ci la ñu defoon pose première pierre bi moom mooy jàkk ji fii ñu toog nii moom moo law ba nii tey ji ba tey ji liggéey bi jeexagul mu nekk ci dix-neuf ans yoo xam ni macha allah investi nañ ci lu ëpp milliards ci amul benn aide extérieure ñi fi nekk ci gox bi suñu ay xame ak suñu ay euh, euh, mbokk ak mbokk jullit yi ñoom rek ñoo ko cotisé macha allah ba tey ji mu toll fii nga xamee ni ñoo gi toll ci euh, di revêtir jàkka ji yëpp ci karo yëpp mbat na ba mu xamee ni sooroor yi ñoo des te dañ koy xolli ak euh, palanteer yi ak daal finition daal moo ci des jàkk ji nag macha allah comme ni nga ko waxee noonu la euh, lépp nag ci njiitu euh, ci ci diine ji muy imaam Thierno Hamidou baan mais administration yëpp it président Chérif Tall moo ko yore moom moo koy doxal ak ñi topp ci moom tey jii sax incha allahu taala euh, euh, vice président moo fi nekk muy Abdoul Coulibaly suñu paree moom la ñu jox kàddu gi incha allahu taala moom itam mu wax ci kàddu ci baatu Cherif Tall euh, nuyu mbooloo mi jaajëfal leen ñu ngi leen di jaajëfal yéen itam waa TFM ci di ñaan yàlla seen groupe bi yëpp. yàlla na yàlla def ngeen tegu ci yoonu teg xibaar nga xam ne joxe xibaar am na ay charte mooy di joxe xibaar yu wér te wóor yàlla yàlla defal leen ko yéen itam ngeen yàgg di ko giite di ko diriger ak euh, loolu yëpp. loolu nag ñu ko wax itam te boolewuñ ci alxayriya ndax man dama bokk ci alxayriya école bi nga xam ne moom lañ jëkk tabax muy groupe scolaire man maa koy giite kon ji jii suñu commencé émission jàmmal jumaat yi. te eh, at mi nga xamee ni saison bi alxayre moo koy sponsorisé ñu ñëw commencé que ci jumaa ji nga xam ni moom laa fi laa nekk kon loolu itam ñu ngi leen ci jaajëfal di jaajëfal waa alxayriya yëpp a soxna Alima Samdul Fatah ak kii nga xam ne moo leen teewal fu nekk muy El Hadji Ndiouga Mbeng yal na yàlla defal lépp yàlla dool ñu jàmm bi këru jàmm kër ak jàmm àll jàmm àddina ak jàll wala xala jazakumullahu xeyran kon nag ñu jox kàddu gi vice président bi nga xam ne moo fi teewal Chérif Tall mu tudd Abdoul Coulibaly. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp seen tur seen sant. ah di jaajëfal TFM comme ni ma jiitu woon rek moom imaam Seywetu Mbaye ak imaam Amadou Ti Diop ah moom dafa nekk lu ñu wax rek. ñambaas moom ci sër moom bu fekkee nit du yëngu moom du yàq dara mais mu ñu wax leen loo xam ne waxuñu ko fii ah euh, jàkk ji nag alhamdulilahi rabil alamin comme imaam lu mu def jeunesse bi moom lu mu ko commencé ba léegi mu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant yàlla bu baax a baax di sant yàlla bu baax a baax ah parce que boo si mu mel nii ñi ñi fi nekk alors muy bureau bi Chérif Tall nag newu fi bu fi nekkoon xëy na bu ma gën a fas faram-fàcceel wax li nga xam ne moo ci nekk mais dañuy jëm rek waaw ñu ngi ci turu bureau bi aussi mooy président bi maa topp ci moom ndax ñu fi nekk ñëpp dem ci trésorier bi ak secrétaire général trésorier bi mooy euh, Massamba Diagne trésorier bi Alioune Barbe Cissé ak ñeneen ñi intendance moom Diop ah jàkk ji nag alhamdulilah rabbil alamin bu ñu sant ñëpp ba pare ñu ngi sant aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi. contribution bi ñu def moo tax jàkk mel ni moo tax jàkk mel ni ah loolu nag ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax ndax ñu am ne aussi mooy imaam yi aussi ak seen ñaan moo ñu jàppale. Ah alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi jërëjëf ñëpp wax bi bañ a gudd moom xam nañ li nga xam ne moom mooy mooy li solo rek ñu ci wax lool rek lañ kii di ñaan yàlla rek yàlla jàppale ñu daal jël ko kanam. asalaamaaleykum mbokk yi. ñu ngi leen di nuyu di leen sant Oustaz Ndiaga ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa teewaay fii ah, mën na may wax ci turu quartier bi bi ma doonee chef de quartier délégué de quartier fii di SCAT yu bam ñu kontaan lool ci seen ñëw bi fii eh, lii nag eh, bañ ko sumbee yàgg na booy fàttaliku 2013 ca Makka waxtaanoon nañ ci lu mel nii imaam Saybatu yàlla def na euh, keroog fekkoo ko waaye ba ma jógee yow waxtaan nañ ci ñu di ko dox ba daaw jéeg bi ngeen fi ñëwee yàlla def euh, nekku fekkuma fi maa ngi woon génn naa dakaar te yàlla def boole na ma ci kon nag ñu sant yàlla bu baax a baax. Eh, li ngeen gis fii nag euh, maanaam skati ba moo toll nii ay nit yu am passif la waaw ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax ñu ngi ci école yi ñu ngi ci daara yi ñu ngi ci jumaa ji. waaw kon nag loolu jar na sant yàlla ah, li ñu la gën a gërëme nag mooy que ne nga ko fësal parce que euh, fësal bi moo ci am solo bu fekkee ne kenn yëgu ko it du du fa war a service d'exemple li ñu wax ku ko gis xam na ne ñii ñu bëgg seen diine la ñu ànd ak lislaam la kon li ñu ciy góorlu kon nag dana mën a tax keneen góorgóorlu ci loolu loolu rek moo ci illa bi kon nag ñu leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla dolli leen ba seen man-man yokk salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, Oustaz Ndiaga ñu ngi lay fay nuyoo di la nuyu bu baax di la jaajëfal ci taxaw gi ngay taxawu jumaa yi ci réew mi ak bitim réew ñuy ñaan émission bi yàlla na ko yàlla saxal euh, tey nag ni ko sama papa yu tedd yi waxee ci njàlbeen ma di leen nuyu ñoom ñëpp di teg sama nuyoo nag ci loxol euh, imam Mouhamad Diop imam Mamadou Diop bi nga xam ni ci ni mu ko waxee ci ñun la bokk alxayriya macha allah dëkkandoo ak jumaa ji di ci def liggéey bu rafet kon sunu nuyoo ñun waa alxayriya ma jëlee ko nag ci sëriñ Abdul Fattah mi nga xam ne moom mooy vice président bi soxna Alimatu Sall jiite ko nekk ca bitim réew ak ñi ñu ko bokkal ñëpp kon imaam moo ñuy leen nuyoo bi incha allah ci ñi mu war a jëm ñëpp. Euh, tey jii nag euh, defe naa message yu alxayriya mën naa bañ a bañ a gudd ndax boo nekkee ci sa kër. Euh, da ngay féex féexuk benn baat rek doy na nga wax ca sa soxla lan laa bëgg a wax mooy euh, daarul ay taam bi nga xam ne moom la alxayri njëkk a samp mooy daara juy dalal ay jirim di leen jàngal alxuraanul karim waaye yor seen lépp macha allah ak seen njàngum tubaab ak la ca aju euh, fii ci Dakar ñu ngi ko njëkk a samp fii ci Scat Urbam di dëkkandob jumaa ji eh, dend ak yéen lool tey ñu yaataloon ko ku ne xam na ni yor ay xale yu tuuti yoo xam ne dañoo ñàkk seeni waajur yombul waaye ngeen yaatal ñu ci loolu tette ñu ba tey ji mu jur yeneen kon yaakaar naa message bi njëkk bu alxayri fii ci Scat Urbam foofu la jëm ñaareelu message bi dafay jëm ci aaya bi nga xam ne moom la imam mujj jàng ci jullik ajjuma gi tey te mooy watawasaw bil xaq watawasaw bi sabr foofu la adduna bi toll nit ñi buñ dee dénkante dëgg tey dénkante muñ léppi sunu borom dafay daal di wàcc ci ñun alxayri aw doxinam mooy eh, képp ku mu fekk àqam wàññeeku ci la waroon a jot jotu ca mu ñëw dend ak moom dimbale ko jàppale ko eh, sama xel rek mi ngi dem ci eh, démb ci suba rek laa mujj ci benn hôpital fii ci réew mi joxe fa ndékkil téeméeri nit te kenn laa ci ku jiite boobu équipe waaye yeneen équipe lu ëpp fukk ñu ngi ci réew mi di def lu mel ni lii nga xam ne tudd naa ko léegi waaye bu weesoo loolu euh, comme dañoo wax jàng ma tudd léegi daarul aytaam njàng moomu nag alxayriya daf cee teg loxoom slogan bi rek moo di charité et affection pour lutter contre la pauvreté l'ignorance et l'exclusion mooy jàppalante tey dimbalante ngir lan xeex ndool xeex euh, ñakk xam waaye xeex boddi konte nit ki bu xamee kenn dootu ko war nit ki bu amee day daal di gore lii la alxayri bëgg moo tax ñuy jéem fu nu toll rekk képp koo xam ne sa loxo jotul sa ginnaaw te ngay gor di jullit ñu bañ nga tasaare sa bopp feneen mbaa ci jeneen diine mbaa ci ñeneen ñu taxawoon te ba yàlla boole ñu jàmm kon fii lañuy ñu yemale tey sunu kàddu El Hadj di la sant la gërëm di ñaan seenu doxeen yàlla na ko yàlla gën a yokk alxeyri incha allahu dana leen ci gunge bu soobee yàlla muy naaj wala muy taw ñu ngi jégalu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi jërëjëf itam ñi ñu àndaloon jërëjëf itam alxayriya euh, mën naa wax ni rek bu sëriñ Abbas sàll ndax soxna Alimatu ak sëriñ Abdul Fatah loolu la leen wayjur wa bàyyi woon ñu nekk di ko continuer yàlla na yàlla yeesal yërmande sëriñ Moustapha Sall ma nga xam ne moom yitte jëm ca def am na solo lool tabaarakallaahu imaam Diop jërëjëf yàlla na yàlla dolli ndam ndax moom diine rek ko ñor fexe ba ndaw ñi taxawaat ñi ñu war a taxawe euh, am saybata yàlla na yàlla dolli ndam ak mag ñi fi fekk ñëpp président jërëjëf ndax yitte ji moom mii moo tax fexewoon ba ñu tax xawan fi kon yàlla na yàlla dolli ndam kon fii la ñuy daal di joxe imaam mu ñaanal ñu àndoon ko ak Ibou Cissé bu baay ànd ko ak seen xarit Alxaaji Njaga Sekk yàlla na yàlla dolli ndam defal nu tawfiix ci barke Seydina Muhammad jox leen rendez-vous ba àjjuma ak jàmm ci beneen émission yoomal juma ci xutbab juma jërë ngeen jëf alhamdulilahi rabbil alamin allahuma allif bayna quluubina wa aslih zaata baynina allahuma kun lana wala takun alayna ya arhamar rahimin allahuma waxid sufufa almuslimina ya arhamar rahimin allahuma allimna min alqur'ani alkarimi kullama jahilna wa zakkirna minhu kullama nasina allahuma nawir sudurana bi nuur alqur'ani ya rabbal alamin allahuma nawir sudurana bi nuur alqur'ani ya rabbal alamin allahuma ya arhamar rahimin allahuma barik lana wa fi